mbokki internet da leen ak jàmm seen chaîne youtube di Buzz Actu 221 di chaîne bi leen di jox ay xibaar yu wér te wóor abonné leen te bés cloche de notification bi ngir nag dara bañ leen raw suñu ay xibaar Buzz Actu 221 mbirum Ousmane Sonko mi nga xamante ni jamono ji ak bi nga xamante ni daal nañ koy teg loxo ñu daal di koy yóbbu ca prison bu seddi kotaan ci naka noonu nag mu daal di dund ci ay jafe-jafe ba tax rek ñu daal di koy yóbbu ci hôpital principal nañ ko yóbbu hôpital principal bi mu nekkee ca prison bu Sébikotane moom mi lee di Ousmane Sonko nag dafa yëkkati woon ay kàddu mu daal xamle ni kii di Khalifa Ababacar Sall ak kii di Barthélémy Dias dañ ko trahir waaye nag laata mu yëkkati kàddu yooyee dafa daal xamle ni doon joxoñu baaraamu tuuma ay responsable yu yeewi askan wi yoo xamante ni dafa wax ne ñooñee dañ ko daal di ci naka noonu mu doon accusé à kii di Bougane Gueye Dany kii di Khalifa Ababacar Sall ak kii di Barthélémy Dias mu daal di xam ne ñoom ñi lee ay dealer lañu dañ ko daal di dil ak kii di njiitu mi di Macky gannaaw bi mu xam le ni ñoom ñi lee doon nañu waxtaan ak ki nga xamante ni amoy njiitu réew mi di Macky Sall jamono ji nag moom leader bu Pastef mu daal di feebar lool waaye tamit ay avocat mu daal di koy jege lool ci nag noonu nag di xam le ni ki nga xamante ni mooy traître bi warkat bi mu ngi seen biir waaye tamit mu ngi ko doon fréquenté saa su ne ci nag noonu nag moom leader bu Pastef foofu yëpp ngir nag mu gis ki nga xamante ni moo ko daal di jaay ñii di waa police ci ñi nga xam ne ñoo bokk si entourage am mu daal di accusé bu baax a baax ñii di waa responsable yu yeewi askan wi ci naka noonu tamit mu daal di woon gannaaw ñenn si ay xaritam ñoo xamante ni dañ ko daal di jege woon lool mu daal di xamle ni yi ñoo ngi ci biir Pastef laata nag muy xam loolee moom leader bu Pastef dañ na yo tombé ci piège bi nga xamante ni dañ nañ a baax mu daal def attention bu baax a baax ci ay garde corps am yi nga xamante ni nag dañ ko daal di jege woon lool waaye ci ki nga xamante ni moo ko daal di piégé ci lu ñeel nag problème mu bi nga xamante ni nag moo taxoon rek ñu daal di koy teg loxo moom leader bu Pastef mu daal di xamle ni benn élément ci ay garde rapproché am moo ko jaay yi la tàkk der ba tax rek moom mi jamono ji mu daal di nekk si ay jafe-jafe ci naka noonu nag moom leader bu bu Pastef سودر